non li ma liggéey la li ma liggéey la ko sama ruq ko su dooma entraîné muy lami xam nga di Joal sangu maar maa ngay woo sangu maar maa ngay sangu maar maa ngay woo wax dama voyage woon moo tax démb sax ñëw ma signature bi xam dama demoon Gambie mais Talfa ci kàttanu yàlla mbaaxam dama koy duma dama koy man góor mënuma billaay walaay góor mënuma wax naa ko mu dégg danaa ko man góor mënuma waaw man sama jaal damaa xeex te moom bu ma mu ma dafa jaal man sama jaal damaa xeex ba mu dañ moom jaalam daa def soog soog la def ba ñoom dañ kon mu kooku mënu maa sonal dara mais game bi mu la ne dina la game ba gémaale ñu lay andi game ordinateur la waaw game ordinateur la boo xam ne game kenn déggoolu ma la xanaa jeu ah. te su ma ko jàppee mu xam ne jeu la game over bi waaw mooy game jeex na ah, mooy jeex jeex na. Euh, Boucar xam nga combat bi dafa am lu ma si jaaxal. muy diggante Youssou Ndour ak Talfa. Talfa dafa dugg Géejawaay daan Mbaye Tine. te boo xoolee démb ba mu fa duggee. ñoom nee nañ Mbaye Tine moo gën a dansé ki nga xamante mooy Youssou Ndour. mais dama naan Youssou Ndour Talfa ñeme bi mu ñeme Youssou Ndour. ñeme na ko de. te loo wax mu ne dama koy gem ba gem la ca ginnaaw. nee na ko zone suuf indi trois ngemb damay indi fii sa balla sër su ma jugee ci moom laa jëm. waaw mooy li ma man parcelle daan naa fi cinq personnes moom Guédiawaye ñaar la fi daan parcelle daan naa fi cinq. beneen bi ko doon jox démb ku kii dama ko jàpp dama ko duma dama ko daan beneen de. te moo mën parcelle. kon kooku toolu ma. waaw te góor a soog fi dabal daxaa duma ñun parcelle mosu ñoo def Morlo Balla Gaye daxaa duma. waaw te ñu yem. Pape Sarr dafa jógee ba Pikine maa ngi koy nuyu bu baax ndax combat bi combat am la Pape Sarr maa ngi koy woo waaw di woo waa Ndaayaan bi yëpp du ma wax nag te du ma sant sama papa mi sama xarit mi liiru nga xam ne moom nday di seex la waaw sama waa coach ñoom Pape Mama Fall sama président Fara Ndaw xam nga Modou sama grand yi waa Laxalay waa Jàmbaar waa Ceddo waa Magadan waa Guy Ga fu ma juddoo xam nga di woo waa marché Pënd ñëpp marché Sam Saara may na ma xaalis bari Saara Alpha démb day def open press Modou Lo ñëw yëngal soutenir ko dooleel ko booster ko vers la victoire est-ce que tey ngay ngay open press sa mag Balla Gaye def ko est-ce que loolu manqué wu la fu mu dem dañ koy gunge dama fu ma jëm man kese maay dox man aw ma fenn sens interdit ah. liiru lan la yabee ci combat bi liiru jaar liiru lu mu bëgg laa koy jox muy victoire loolu da waxu léegi le premier su ma génn si géew bi di nga xam ne si liiru lu mu ma wax waaw man deret géew ay mooy daw sama yaram moom démb dégg nañu ko paay wax ma sama combat damay xeex damay bëre lépp lu muy woote fii la paie waaw lépp lu mu yor fii la paie moom xam na lu may wax bu baax a baax man damay xeex damay bëre comme li muy bëre man loolu laay bëre maa ko dàq waaw te man mosuma bëre combat bi moom combat yi métti rek laay bëre waaw te sama combat ma Talfa dama koy duma ba pare soo ko daan dégguma dama koy duma ba pare soo ko daan incha allahu rabbi ah damaa dégg léegi ne gars ñooy Talfa du game Talfa mënul géem dama ne bu arbitre bi soufflé sama tànk du fekk ginnaaw. dégguñu nga ne. ma ne bu arbitre bi soufflé. sama tànk du fekk ginnaaw. doo arrière Talfa. musuma arrière bi ci kanam du fekk bi ci ginnaaw. musuma arrière te du ma arrière. kon xeex. damay xeex damay bëre daan ko. bu yàggee rek si moom la yàggal. mais mystique mystiquement mystiquement Talfa yaa ngi mystique suuraale mystiquement Talfa yaa ngi koy suuraale. mystique amul si làmb jom mo si làmb. tama dama am jom. wa te loolu yàlla suñu borom moo mën mais Youssou Ndour boo Talfa jaasi pël. Talfa soq bu ndaw. Talfa mbay ti. ñooñu ñëpp duñu Youssou Ndour. ñooñu ñëpp duñu Youssou Ndour. ñoom man kenn rek lay lim chaque jour ñu bàyyi. mi belende nañ ni mo meun parcel ta mo da xex parcel bañ daje moom dama ñëw yooru ma dóor ko duraat bu saf mu yooru beneen moom mooy seetaan. a ko dëgg gis waaw waa Grand Yoff nag maa leen sant bu baax a baax waa Grand Yoff kooku moomul Grand Yoff moomul Grand Yoff maanaam moom Grand Excellence ñëpp ñoo moom pra Grand Yoff waaw

nee na école de ko di a ah, ko jóg si école de bi. Ah, nee na ki sa ginnaaw. ki sama ginnaaw du fa àgg. ah ki sama ginnaaw du fa àgg. daa mel ni daa bëgg mer de. non non kii mooy jëmaay maay Sonko ki daan nijaayam. Ah? moom mooy jëmaay maay Sonko. waaw na laaj nijaayam. waaw. mu tëjoo góor a soog si néeg laaj ko yàggul maa ko yóbbu muy jooy jooy met la ñëw le premier ma duma ko daan ko mu fekk di jaayam lamb ji wax la ci am amul leneen waaw <laughs> lan lañuy mooy gis nga lii rek moo Gueye ñoo ngi koy woo baax di woo Guédiawaay ñëpp Papa Lat Diop maa ngi koy woo xam nga Fatou Faye maa ngi koy woo Ndaw maa ngi koy woo Aline maa ngi koy woo si combat bi ñoom Momo xam nga maa ngi koy woo si combat bi xam nga at Lamine maa ngi koy woo si combat bi waa Mardi Pël Alaaji Fall mention spéciale Alaaji Fall mention spéciale bu jàmbaar xam nga waa Laxale Saada borom Marti Sandaga maa ngi koy woo waa Yeewu 2 tamit dañoo bàyyi lépp waaw dañoo bàyyi lépp waa Yeewu 2 at waa Bagdad waa Guy ga waa marché bees xam di woo Géejawaay waa Ndaayaan tamit comme spécial du wax nag ba bàyyi tur ma sama papa sama xarit mi Ibrahima Diop ak sama papa Kanji xam nga ñooñu maa leen woo bu baax si combat bi Ibrahima Diop ndax su may bëre léegi di xaalisam bu bari may ma moo papa Kanji xam nga waaw maa ngi koy ñaanal ñam ay famille xam nga di ko ñaanal mam jàmm salaam di nuyu ñëpp sama coach yi may entraîné guddee bëccëg ku mel ni Lamine xam euh, Saada maa ngi koy nuyu bu baax ak course daal di mbës waaye ko le Balla Gaye waaw di ma saw tamit sama frère sama xarit mi papa boy ginné papa ma ngay ñaanal di wax lii mënut a ñàkk doomu aadama waaw ki beure ku ne day ñàkk Alice 2 suñu papa borom xolu grand théâtre bi kooku ñoo ngi ñaanal dimanche yalla nako yalla sutural may ko ndam Alice 2 ba may ndam maam ndam waaw. sa ndam si Alice 2 la défendre sama ndam ngi may seetaan Alice 2 sama ndam si yow lay juggé ci carton yalla baxam inshallah rendez-vous bi rek liiru kaay liiru ñëwal liiru jërë ngeen jëf maa ngi leen di ah, gis nga kii borom jom la te naa ko Talfa laal na kii doomu waalo waalo la waalo ci ndey waalo ci baay nekk bañkat amul tiitukaay kii kenn ko gunge day xuus jàll kenn du ko gunge day xuus yàlla moom sëll man maa la wax loolu su ngeen xam ne lépp dëgg la da ngeen gis combat bu neex a neex a neex a billaay sama poos bi la ko bàyyi ngir yàlla <laughs> gis li ma wax billaahi wallaahi wa su la première di gis ko garaaw a garaaw garaaw dafa wax wax bu daw yaram léegi mu ne Alioune Seye sama ndam dafa dépendre ci yow Alioune Seye seen papa la ñoom ñii daf leen a yar du tàngam lu benn xale di ko ñaanal dimanche yàlla na ko yalla may ndam après le premier Youssou ñëw lan la cinq sa kees ñëw yàlla na lu yàlla sutura lamb fii la fekk baax parcelle monsieur ñoo ñëw yëpp géej way te duñ ñu yëpp parcelle musu yëpp géejewaay te duñ ñu yëpp am na fu ñu jaaree ñoo ñu woo ñëpp rek autorité nekk yëpp ñu ñëw jàppale xale bi te yàlla tax ndax waa parcelle wala ñoo yóbbul dara dara dara incha allah ndax jour boobu moom mii da ciy bëre may job samar da ci bëre ah Fadam si ñoo di ci bëre dina ñaan géejewaay ci kaw ci kanam ndax ay bañkat moo fi nekk ay gaynde moo fi nekk xale xam na leen di xaar xam nañ leen di xaar de yal na nu yàlla suturaal yal na nu yàlla suturaal dimanche le premier le cinq ci kaw ci kanam jërë ngeen jëf. waaw di nuyu tamit waa Cambérène. xam ne sama papa maa ngi koy ñaanal foofu képp ku fa nekk yàlla na yàlla yërëm képp ku làqu rek yàlla na yàlla yërëm xare la ajana di nuyu waa Touba bu baax mhm. waa Tivaouane Ndiassane xam nga kilifa diine yëpp waa Canaba képp koo xam dafa may ñaanal waa Casamance Gambie xam nga Fouta Samba Ndour maa ngi koy woo si combat bi sama papa sama xarit sama lépp maa ngi bëggee waa waalo nag man doom waalo waalo laa waaw dem ñi dem Malle dem bokk ne do Jaminaar Séer Dakar Baye Kaan xam nga dem Ross Sénégal Mbaan Jagle Foos waalo waalo yëpp maa leen woo si waaw Père Diaw woo naa ko yàgg Père mooy jox dernier conseil bi. grand Onda grand Onda du ñooñu seen combat la waa Kolda nag waaw muy pël fulaaro yi ñooñu spécial mention spéciale waa Gambie waaw.